assalamu asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax ci Global TV di Diourbel 24 abonné leen tay partager tay ñu fassiyene waxtaan ak ki nga xamanté moy mooy président Baol Textile di monsieur Ousmane monsieur Ousmane ñu ngi lay bégg bu baax baax di la ziar di la jox sa waccu way di la dalal jam wa ndjol ñi ngi lay nuyu. manam xayma la won rek pour ñu jox leen seen bulletin note ndax euh, dañoo war a am dañ leena wala certifier ñu am diplôme. comme àgguñ foofu nag lii xayma la rek comme noonu nga ko waxee am nañ deux ans natt nañ leen kenn ku nekk may nañ la li nga xam ne am nga ko ci couture parce que école bi dafay jàngale coupe di jàngale couture di jàngale corseté di jàngale cuub di jàngale broderie à la main waaw di jàngale cours français kon école bi yooyu muy jàngale nag kenn ku ci nekk nag loolu lañ boole tey nag ci euh, benn bulletin indi si li nga xam ne moom nga am ci sa ci sa niveau toll ci coupe fi sa niveau tollu ci prise de mesure nga xam ne da ngay nattal nit ki wala nga koo ñawal fi sa niveau toll ci coupe fi sa niveau toll ci couture fi sa niveau toll ci coussin yi ñu doon defar ak broderie à la bi nga xam ne xañ na dese nañ lu bari waaye lii ab ñaax la quoi pour ñu woon leen boo gisee sa morom euh, sute la yenn euh, point yi da nga gën a taxaw daal pour gën a bàyyi xel ci di moytu absent yi parce que xale yu bare bëri dañu fonk dañu dañu ñemee ay absent mm-hmm. dañ ma yónni woon dañu demoon fii demoon des fois sax chaque jour da ngay woo seen waajur buñ buñ ñëwut fekk na ñoom seen la ñuy tàggoo seen kër mooy dem nañ jàngi mm-hmm. loolu nag absent yooyu nag mooy xaw a bëri ba daanaka 300 yi sax bu matee pour nga certifier leen ni nga ni nga ko bëggee day xaw a euh, compliqué c'est parce que xam nañ ne xale yi léegi ak ni nga leen di jàngale dafa am technique boo leen di jàngale naxtaan rek rawatina ay xale yu jigéen parce que ñenn ñi am nañ jëkkër ñi des mata sëy il faut que rek da nga leen di fekk ci ci ci ñoom fañ tolloon ku ne ak niwoom wala xelam nga di ko ci jéem a nax di ko orienté di wax ak moom ba li nga bëgg di mu am ko mais daanaka règlement bi sax soo ko tegee carrément rek man na am boo amee cinq élèves bala am deux mois wala trois dañuy xëy daw waaw lim bi moom fi mu toll bu fekkente ne ñëpp ñëw nañ élèves yi mën na jël ba cinquante personnes kii euh, école bi mën na jël ba cinquante parce que am nañ trois classes. Mhm. fi mu toll foofu lañ ubbi suñuy bant xam ne mën nañoo dem ba lim boobu. Mhm. te buñ demoon ba amaat beneen cinquante bu ci tegu muy cent personnes sax mhm. am nañ yeneen lu yoo xam ne mën nañ leen fa yóbbu di leen jox ay cours. di leen jàngal kon ñun suñu mbir. Euh, suñu jàngale amul limite ci côté ndax tey bu ñeneen ñëwoon it. am nañ nuñ ko mën a organiser. ba des fois kon ñii di xëy. ñii di gont parce que ñi fi jotagoon a nekk rek. suba gi lañ jëlagoon 9h ba 13 kon bëgg nañ cours boo xam ne te fi mu toll actuellement ñu ngi ci 25. élèves mhm. te man des na yeneen 25. cinq mhm. te loolu suba gi rek la mhm. xam ne bu ñu amaatoon yeneen ñoom dañuy xëy ñii di gont ñaata maître ñoo fi nekk di leen jàngal maître yi fi nekk di jàngale moom bari na parce que mën nañ ne objectif bi li li ko gën a euh, li ñu ci gën a attiré mooy ñaw nañ parce que xale yi fi ñëw di jàng sax ñu ci baree bari boo leen di jàngal yeneen matières yi duñ ci sawar ñoom li ñu def ci seen bopp mooy nañu ñaw mhm. dañuy imposé sax nan dañu wàññi yeneen cours yi mhm. lu mel ne ay français ay euh, anglais ak naan coupe ñoom li leen li leen gën a intéressé mooy nga jàngal leen coupe ak couture ñu toog ci machine yi ñaw mhm. daanaka boo leen imposé ci yeneen sax dañu mujjee bàyyi waa jafe-jafe yi moom yaatu na jafe-jafe yi ñu jànkonteel nekkul problème mu këyit wala problème mu lu ñu xamul nuñ koy lijjantee wala ci kuñ koy wute loolu du suñu problème xam nga ñu lan mooy suñu problème autorité yi dëkk bi ñëw jàpp ci biir centre bi mais bu dee ay kayit ñi ngi jokkoo ak waa ministère ñi ngi jokkoo ak IA e bu nekk dossier yi nga xam ne yëpp war nañ ko war ak ne ministère lañ ma ko envoyé direct sama téléphone ñu ngi ci liggéey ak ñu ci war a liggéeyal kon loolu du ko problème administratif wala yooyu amuñu boobu problème waaw li ñu am problème bi ñu am mooy wax nañ ko waxaat ko autorité yi nga xam ne ñoo fi ne nañ ñëw comme ni Pate def fayal na benn élève mais pourquoi pas mënuñoo am ko xamné sax day ñëw fayal ñu location bi 1 an. japp ñu ñun. ça va parce que kuy ku ne ca yoon wa di dem. mo neex a dimbale. moo neex a gunge. waaw te nag benn autorité du na yeguma ko. Mhm. té ñun buñ gaawoon a découragé sax. Mhm. bañ né bëreet dañu far baye ndax bañ commencé ministre de l'artisanat formation professionnelle. Mhm. mo ñu ci ñëk a euh, encourager wax ak ñun. won ñu ci yum ñu ci dig yo xamné ni yoyu yooyu nañ na ñun dañ koy ubbé rek suñu bamba maasee. bañ commencé gisatuñ ko lennam di ko fi directeur waa ñaata yoon lañ dem toog ak moom expliqué ko euh, centre bi wax ko ko ba mu bind toujours mu ne dinaa fa ñëw dinaa ko seet si maire noonu maire wax nañ ko dig nañu sax ay localité yu ne danañu ko jox pour ñu mën koo defar pour école bi mën faa dem waaye dara kon nag fi mu toll daal lañ bëgg mooy ñi nga xam ne ñoo fi teewaat ten dañoo bëgg a jubal en tout cas def nañ leen benn signe mhm. ñun moom ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def liñ man nyingi ngi nyingi ñu ngi mandal. man daal li ci des nag ñu ngi koy bàyyee yàlla fu falanya, ñu yemale rek ñoo xam ne fa lañ ñam mais ñi nga ñaan yàlla nag avancement waaw social bi lañ jiital ndax ñun kenn kon amul kenn koo xam li ngay jëlee ci centre bi Mom ngay bëgg pour di koi yóbbu sa kër dépasse wala nga dañ koo def rek ngir bëgg Jurbel ngir bëgg a participer ci développement wu Jurbel biñ joggé di ko def la preuve liñ njëkkoon na dem moy def nañ tourner ci sëriñu daara yi fi nekk yépp wala bok ci ñu bari mhm. wax ak ñom pour ne len dañoo bëgg donga yi nga xamne dem nañ ba sori ci alcorane ji nga xamne presque leen ñu ki buñ préféré métier nañ len di indi jour yi nga xamne duñ ki ñu commencé di def formation par ba jubo won ci ak ñu bari mais problème ñu ñu ci jappalé lañ amut parce que buñ ko bëggee mënu ñu ko yano waxtaan nañ ci ku mel seigne Abdoulaye Cissé Cheikh Abdou Dieng ak ñeneen ak ñeneen ñu jox ñu seen accord ba tok di ñu xaar wa mais amna sama jigen bu baax do liggéey ONFP mu expliqué ma ne ma bala ngeen cee dugg xaar leen ba am avis ñu expliqué loolu directeur ONFP bi fi nekkoon wax ko maire wax ko ñi fi autorité yooyu ma la tuddal yëpp pour objectif boobu ñu bëggoon mais malheureusement objectif boobu mujjul jàll ndax amuñu appui yi ñi nga xam ne moom la ñu waroon am tey ñun mënuñu ko yoon parce que bët yan nañ yool waaye voilà